alhamdulilah inna ngeen di sant rabal dooma di bàyyi kii du keneen mën naa defar waa bi yow mi liggéeyal Moustapha bul fàtte am di Moustapha ak doomi bàyyi Moustapha ñoo amee boote xarnu bi man na xalifatul xadim fees na ba man na doom te ami xam-xam ami ko mën naa defar wa waa xarnu bi noppee gore talal di joor la moome Saalum a Kajoor ku laaj mu jox la lay somu te musa gantul xarnu bi taa feere njoola mi na taa yaa doon njoola mi na taa Tuuba di sun Madina taa yaay weereti waa xarnu bi yaa neexa woy te neexa taas ne xarnu bi moo ci maas edale fii ba weesu faas yow lañ jébbal xarnu bi raa ngene lu yaa ko yor yaa tegi tur bi taw basar ngir naaru góor ak paso far rawantoon ci xarnu bi mboolem si xaar wa kibaar yaa tax ñu tabi ci saxaar ba wàcc tuuba ngeen ji gaar noppal bi robi ngi wala nga nuy naa ni kawsar ak jinaan dootun tapaati siyaan jaajëf defar nga xarnu bi jumaa ji yaa ko taxawal yaa teemu naa saay ni yaral naa la wi yàlla na ko matal amina war na xarnu bi yow la Suleymaan xamaloon carrière ba doja ca desoon jumaa ja bayti tabaxoon moom ngay defar waa xarnu bi daawuda bambalay misaal baytil muqaddasi la naal uji boroomam ba kamaal taaw ba defar ko xarnu bi ndombey ngene lewoon ca maam yo satu ko keki ndaam nga boole ko nga ne ni daam rango moo ci xarnu bi ci waxal mooy bis bi mooy bis bi nga xamante li ci la Sëriñ Tuubaa ñi bisi yoon Tuubaa ndaxte bi fi jógee ci di ci géej gi euh, ban ban ba bisu tey bii de si waatul Touba ndax dañ ko sëñ ñëwaat Touba raam na ba mu fi jógee am na juróom-ñaari ci géej gi ba mu fi jóge waat ñëw demaat na gànnaar demaat na jolof waa jaaratul tubaa bi mu ñëwee njaareem fi la am fukki at juróom door a wàcc bu liggéey ñëw Touba te noonu Cheikh Moustapha su ma ñu ngi ma yóbbu Touba te boo xat dam su ko defee lu ngeen tàmbalee maa ko yeggale te moom Touba tiim Cheikh Moustapha woo ci guddi googee ba mu wàccee liggéey indi ko fii ci Touba. moom la ñu màggal di ñaar fukki guddi ci weer tamxarit euh, moom dégg sëñ Moussa Kanaan àllarba jëm fi ne bëreet di di nit fan ci tamxarit keroog la at yëpp ne xarit góor ñi jigéen ndaw ba xëx xel yëpp génn ne wereet na ku nekk ne këreet neexoon keroog ma ne xureet ndax yàlla dootuma torox mooy guddi tey gii Cheikh Moussa wax ne képp koo xam ne si fanaan si guddi gii ba sa tee nga ak bàkkaar képp koo xam ne dañoom alal nar ma ko yët gis ko wër ku bëgg a ñëw te mën na ñëw nañ ko ca paasal mu ñëw bu dee ko feebar itam nañ ko ci baasal mu ñëw ndax guddi gi ku ci fanaan bëtee tàgga ko bàkkaar ndax mooy guddi gi gënal sëñ Touba ci mooy bis bi mu ñibbisee Touba ba mu jógee Touba dem ci tukki bi gii guddi la fi a Touba loolu dañ na ko ci àll bi waaye mi ngi door a ñibbi sa Touba kon sëñ Touba Cheikh Moustapha ko indi indi ko Touba màggal gi moom lañu màggal moom ñëpp ko bokk nag waaye dañu ko moom ñaan màggalu Darou Khoudoss ba bokk nag bu ñu la ko moomelee war nga caa def loo loo mënut moo tax nun waa Daaru Xudoos def lu mën ak la mënut moom laay wax léegi dama ne sëñ Tuubaa amul tànk ginnaaw yooyu kanam rek la am ndax na ma suñu borom jéggal ci li may wax ah ñi fi nekkoon démb ak barki démb amuñu woon lii ak mbooloo mu toll nii wax dëgg yàlla amu fi woon man dama daan màggal si ànd ak sama baay mu téye sama loxo mag Daaru Xudoos gi barki Seexul Xadim jógee dëkk bu ñu wax Tuubaa Mbul waaye daa daawut mel nii wax dëgg yàlla waaw wax dëgg yàlla loolu daal laa xam. mooy léegi yë lépp léegi lépp ndax boobay 46 la ñuy dugg ñenn ñuy dox léegi na foo jëm gis oto bu la yóbbu wala saret wala ñu yóbbaale la sax sant sëñ Tuubaa daal la ñuy def bu wéré wéré wéré wéré. xanaa di ci teewlu bu rafet rek di ñaan li ci borom moom façon muy Cheikh Mamadou Moustapha yàlla dajal na taw fee xam waaw ndax noon na bis bi ku fi ñëw ñaan na sag yokkute.